par contre ñi nga xam ne nag seen yaay ak seen papa dañu jur saagakat ñuy saaga ñooñu nañu mere seen yaay ak seen papa vraiment ñooñu moom nañuy saaga parce que man naka man xaw ma naka ngay mën a juddoo cim réew jigéen jur la cim réew ngay saagaal keneen koo xam ne jigéen moo ko jur ci réew mi dans la même condition ni la jigéen jure loolu ku mu dar rek je pense que li la dal doy na sëkk quoi jartu sax ñu lay jéem a kii quoi nit ku dem bay saagaal nit yow sa sa ambition sa àdduna mooy saagaal nit c'est extraordinaire donc ñiy saaga moom dañu continuer saaga sama yoon newul ci ñoom donc wax ji nag bari ay fen ay tàppale gars wax ba ni man ak Astou Dione tas nañu sëy bi tas na muy fen wu rëy ñu waxaat yeneen affaire yu gën a garaaw toog benn journal xëy suba daal di titre ni man dañ ma convoqué ñëpp di woote ci àdduna bi lu la convoqué lan moo xew et cetera dossier boo xam ni ça fait deux ans mi ngi ci devant le tribunal du commerce lan moo xew CICES dañu dañu confié woon ñu suscom ñu organiser foire de Dakar 2019 ñu organiser foire de Dakar je pense que foire bi ñu organiser kenn du ko fàtte. pare beneen directeur ñëw daal ni day rompre contrat bi ñu rompre con mu rompre contrat bi ñu am contentieux CICES di ñu laaj cent quarante millions ñun Siscom ñu leen di laaj deux cent cinquante millions procédure bi nekk devant le tribunal di commerce depuis deux ans gars yi profité ci besu livre bi ñëw ni man dañ ma convoqué tribunal di commerce convoqué ñu kenn avocat yi ñoo fay dem